ab mbir bu doy waar moo am ca diwaanu Cap Skirring xale bu jigéen bi ñuy wooyee Beye Fall moom mi la ab propriétaire d'un salon euh, de coiffure foofee ca diwaanu capsicrine démb ci samedi ji nag ci guddi ji lañ ko daal di fekk foofu ca salon am ñu daal di koy rendi xateet ba tax nag moom mi la nag jamono jile euh, ki nga xamante ne rek moom la ñu soupçonné ne moom moo def euh, jëf ju ñaaw ji mi ñu wuyoo ci turu Oumar Sadio moom mi nag jamono jile ma ngi ca loxoy gendarmerie tey jile lañ ko daal di jàpp tey ji ci dimanche ji lañ ko daal di teg loxo moom Oumar Sadio moom moo def jëf ju ñaaw di ñi mel gannaaw ba nga xamante ne nag def nañu ay lanket ci la ñu daal di gis euh, kile di Binta Fall mu nga xamante ne rek moom ab salon de coiffure la yor foofee ci diwaanu Cap Skirring ñu daal di koy euh, trouver foofee ca salon ba démb ci guddi gi ñu daal di koy rendee xateet mu daal di nekk ab mbir bu doy waar jamono ji la nag daal di nañuy teg loxo euh, ku ñuy wooyee Oumar Sadio dañoo jàpp ne moom moo def euh, jëf ju ñaaw di ni mel démb ci guddi gi ba tax nag moom mi le gendarmerie ba nekk ci diwaanu Cap Skirring tey jile bi ñetti waxtu ci euh, bëccëg daal di jotee ci lañ ko daal di fekk këram daal di ne ko coppet daal di koy yóbbu moom Umar Sadio moom la ñu jàpp ne moom moo def jëf ju ñaaw ji mel moom moo rendi xatit ki lay di Binta Fall daal di nekk ab li nga xam ne moom mooy propriétaire salon foofee ci diwaanu ak euh, Cap Skirring